bien euh, ce cas qu'on avait oui. géré nañ ko très bien oui. donc c'est pas un problème de moyens c'est une question de solidarité internationale entre les peuples problème am na fa fële mën nañ ko fa régler pourquoi les mettre dans des avions abandonner ñii ñiy jaar fi non c'est ça dans cet esprit là que le chef de l'État a décidé alors solidarité mm. internationale dem ba euh, say doom maanaam seen ñu am njàqare seen famille am njàqare mais également seen bakkan nekk ci xottu gerte parce que treize lañu sur mm. onze millions de population yu nekk Wuhan euh, kenn ku ci nekk mën nga xëy am feebar bi vous savez mën nga sax dem plus loin xam ni Chine quand même C'est pas, la ville, c'est hein. pas un petit village, non, la, la ville, Chine. Hein. Je parle de la ville, hein. Voilà. De... Mais bon, la Chine, c'est 59 euh, provinces, 59 millions, là. Mm -hmm. 59 millions d'habitants, la province. Dépasse le Sénégal, le, le mm -hmm. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, moment bi, nous les choses se passent très bien il y a aucune raison de s'alarmer surtout que tout le monde a été rassuré y compris les familles donc je pense que les familles ont été reçues est-ce que dañ leen dalal parce que gis nañu Moustapha Diakhaté mu wax ne le président de la République li gënoon mooy mu dalal njabootu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ville bi feebar bi feeñ dañ doon ay doomi sénégalais est-ce que loolu am na wala fu mu toll c'est ce que je suis en train de ils o ñoo sax ñoo njëkk a joxe ay moyens sénégalais di envoyé. Mhm. financier j'entends. Mhm. donc côté boobu j'ai beaucoup de respect pour Moustapha Diakhaté mais quand même am na yoo xam ni état moo koy gérer ak mhm. je pense que le février d'ailleurs le président chinois s'est adressé directement au président sénégalais. donc lu ñu waxante kooku je pense que bu ñu fi nekk di dugg ci ay affaires yoo xam ni ñu <laughs> ñu xamuñu ko c' que on adore débattre dans un pays démocratique mais am na yoo xam ne c' deux états qui le gèrent les deux chefs d' état se sont et je vous dégg nañu ambassadeur bu Chine wax ne euh, jox nañu Sénégal bi mu amee Ebola 175 millions jàppale ko mhm. woowuñu benn doomu réewu Chine ne ko jógee fi nga dem est ce que tey loolu moo doon réponse bi loolu lañ ak nan la ci Chine taxawee woon pour vous dire rek ñoom tamit boobu problème amee jëluñu seen ay mbokk yóbbu. est-ce que c'était quand même dans cette situation? moi c'est une réponse diplomatique et c'est une réponse vraiment qui est là